Babacar, je ne te vois pas, Babacar Gaye, euh, celui, le, notre gourou de statistiques, là, à chaque fois que j'avance des statistiques, euh, il me dit, Président, je prends note des statistiques, là, il faut qu'on les revoie. Mais je pense que chaque année, il y a au moins 300 000 jeunes qui viennent dans le marché de l'emploi. Et ça, il faut absolument pouvoir les absorber, mais surtout créer les conditions qu'il faut pour pouvoir absorber cela. Mais je peux, on peut revenir là-dessus. Nous avons proposé pas mal de, de solutions pour absorber et résorber le chômage. Il faut qu'on reprenne, qu'on intensifie la production dans notre secteur primaire. Il faut qu'on redéfinisse, en tout cas qu'on recrée notre euh, tissu industriel. Il faudrait faire un certain nombre de choses. Alors pour les femmes, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup et j'en parle tout le temps. Oui, vous avez raison. Moi, je suis convaincu que le potentiel de la femme sénégalaise n'est pas encore exploité à fond. Et ça, j'en parle, pas plus tard que hier, j'en ai parlé. Les violences qui sont faites aux femmes et aux filles. Je viens du système des jeunes Nations Unies, j'ai beaucoup travaillé dessus. Euh, je pense que nous devons fondamentalement assurer la sécurité et le bien-être de notre population, mais plus particulièrement des femmes et des filles. Président, on nous réclame le Wolof. Le Wolof. Mais pour le dire en wolof là c'est compliqué mais bon on va y arriver donc di wax ni euh, Binta question bi mu laaj ci euh, violence yi nga xamné dañ koy tek jigen ñi te ñu gis ko ah, ci réew mi gis nañ fi ay situation yu extraordinaire ñu koy déplorer diko ñaawlu bu baaxa baaxa baax may wax ni loolu nekk na loo xam ne war nañ ko arrêter ci réew mi surtout violence yi nga xam ne dañ koy exercer ci ak aussi société société sénégalaise des na ñu gën ko dooleel ñu gën ko bàyyi xel ñu gën ko jàppale ba nga xam dañu mënal li autonomisation des femmes mais surtout Binta leadership féminin loolu wax naa ci lu dul benn du ñaar ma ne jaaduwul réew mu am ay jigéen yoo xam ne ay jàmbaar lañu xam nañ Alioune Sitoé jaata xam nañ waa jigéenu ndeer xam nañ yeneen jigéen ak yeneen jigéen fii ci Sénégal ñuy modèle ci engagement ci taxaw pour réew mi jàkk pour réew mi baax

mais may wax aussi ci autonomisation bi nga xam dañ ko waral defal dañ leen a bañ mënal seen bopp bañ a xaar kenn di leen mais ñoom parce que am nañ capacité parce que am nañ parce que ont nañ pour liggéey jàppale leen ci financement notamment seen groupement yi nga dañ ko formation et quand je dis formation mooy formation boo xam ne pour pour gën a mën a jariñ askanam pour mën a gën a jariñ réewam ñu taxaw ci loolu ba mu nekk leneen li mooy leadership féminin bi nga xam ne dañ ko soxla ci réew te loolu it yàlla def ma sama xam-xam màcc ci parce que dama ci liggéey ci ay réew yu bëree bëree bëri may wax toujours ne du ma taxaw ne dinaa am gouvernement bu paritaire mais mën naa gëm ni sama gouvernement Vous ma le président de la république du Sénégal Si un suis engage engagement engagement donc di wax Sénégal nous devons compter ci confiance jox de responsabilité au plus haut sommet de l'État pour ñu taxawal Sénégal ñu liggéeyal Sénégal jigéen boo ko dénkee mu ñoŋ jigéen boo ko dénkee du ko yàq démb rek fi ma doon waxtaanee maa ngi naan boo xoolee ñiy jalgati alalu réew bu dee fukk bu amee benn jigéen bari na donc ma gëm ne ku leen dénk ñu doxal loolu it bëgg nekk na loo xam ne incha allah. man moomu Mamadou Dia jigéen ñi xam nañ nee naa leen man ak ñoo may ànd pale te loolu laa gëm donc gëm naa ni bu ñu taxawee bu ñu taxawee bu jigéen ñi taxawee Sénégal dina baax bu jigéen ñi taxawee bu ñu defee fulla def fayda te loolu lañ leen xamee réew mi dina jag te man dama bëgg a ci jigéen ñi pour ñu tabax Sénégal bu bees incha allah xam naa ne. loolu euh, dinañ ci nek surtout droit yi nga xamné war nañ ko am évidemment accès à la terre loolu nek na lo xamné ne lu am solo la dina ci d'ailleurs ñun ci suñu programme amna suñu suñu sunu benn priorité stratégique defena ci axe axe euh, je crois pilier 1 la boo xam on parle de euh, que les femmes et les jeunes puissent avoir accès aux aux aux facteurs de production on en a beaucoup parlé ci programme bi donc c'est tellement important pour nous d'être euh, une priorité stratégique dans le cadre de notre programme accès aux ressources mais accès à la terre accès Nous sommes des femmes entrepreneurs nous sommes des am travail boo xam ressources minières nous jouer son rôle qui accès à l'énergie nous jouer rôle parce que me disent que ni